déclare qu'il renonce définitivement à toute forme de violence. Qu'il déclare qu'il renonce à toute forme de violence et qu'il condamne ñi nga xam ne ñooy yëkkati ay kàddu yu rafetul di ko teg ci kilifa yi di ko teg ci kilifa diine yi qu'il le dénonce et qu'il se sépare de ces gens qui l'accompagnent. loolu di première charte bi ñaareelu charte bi dama bëgg Ousmane Sonko publiquement avant ñuy toog débat qu'ils condamnent le MFDC, qu'ils leur demandent de déposer sans condition les armes, qu'ils soutiennent publiquement notre armée nationale et qu'ils reconnaissent que la Casamance est une et indivisible que Casamance xeet yëpp a ko ñoom ñëpp ay ànd ay sénégalais loolu na ko wax mu leer pour ñëpp dégg ko. troisième sart bi compliqué wul troisième sart bi troisième charte bi compliqué wul mooy Ousmane Sonko qu'il déclare qu'il respecte les institutions de ce pays et qu'il s'engage à arrêter à les dénigrer et les insulter bi mujj nag bi mujj nag bi mujj ci charte bi mujj ci charte yi pour que débat ait lieu compliqué wul man damay jàppale néew ji doole ji jiital ci les femmes e les jeunes fii na setali deram ci liñ ko tuumaal na setali deram ci liñ ko tuumaal condition yooyu condition yooyu condition yooyu bu ko rempliré ba noppi fu ma woo ni mu ko bëggee fa mu ko bëggee en wolof en français et en anglais parce li tax ma teg ci anglais mooy pétrole bi ñu yor ak gaz bi contrat yi ci anglais lañ koy bindee foog mu man di wax ak nit ñi kon anglais bi aussi ci la bokk kon nag Ousmane Sonko dégg nga kàddu yooyu boo remplir les conditions yi foo ko bëggee noo ko bëggee ak ni nga